salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa wér gi yaram ñu ngi ne ñëpp eh, fan yii nag doon nañ wax ci mbar buur waaye tey dañ ciy dellusiwaat ci wàllu doom yi gën ko yaral lool ndax ñu wax na ci xob yeeg laawtan gënul yëpp boo demee ci doomam yu it te toujours mooy gën dañ ci mën a jot lu baax la lu bari njëriñ trop ndax am na xeeti ferñeent yu bari ci ni surtout vitamine yi vitamine K vitamine C vitamine B9 euh, yu mel ni mbell it am na ci potassium ak phosphore antioxydant yooyu yëpp loolu nag li tax ñu la ko ci tudd lu mel noonu su amee ci yooyu rek day bëri njëriñ trop bëri lu may faj ak yeneen sax yoo xam ne xëy na tudduñ ko waaye doomam boobu dañ am na ñu koy daggati sax di ko lekk fere xott bi noonu am na ñu def jus boo ko defee jus nag moo tax ñuy wax di ko naan dina faj lu bare bari ci xeeti tawat yu bari waaye nag bu werte bi noonu la ñuy wax noonu maanaam bu ñoragul doom bu werte bi noonu ndax bu ñoree ba kii day gën a wex mais doom bu werte bi noonu soo ko amee faraj ko noonu daggate ko xott bi noonu nga xooj ko ab diir lu ma trente minutes ba nga xam ne waxtaan wi dana wàññeeku su ko defee léegi nga door ko jël léegi moo xam danga ko tucc tuccal wala nga def ko ci yii nal noonu ma def ko jus wala naxit dëbb ko noonu ba mu kii nga jàmb ko segg ba mu set nga jàmb ko di ci naan par kaas bis benn bis bis bu benn kaas wax nañ ne ku koy def dana la fajal tawat yu bare bari yoo xam ne ñu ngi ko bëgg a lim nii surtout yaram wax ne dafa am tooke te loolu da nga gis léegi la ñu koy jàmbat seen yaram yi xesa nag yaram yu mel ni melentaan ci doxut ci crampe yéeg yu mel noonu yu ci gën a bari bu yaram bi amee tooke deret ji salte loolu da koy gis ndax subaa deret ji dootu daw normal loolu su koy naan da koy dindi moom set wecc wax ni ne loolu moom lu ko ci amul ci morom moom doom bar boobu def ko giréw di ko naan surtout ñi nga xam ne sax dañuy naan ñollu walla ñu tux ba nga xam ne seen yaram yi day mel lu yàqu am yu ñuy yëg wala sax dem ba yëgatuñ gis nga ko toujours ni ñuy mel noonu suñ koy naan bëgg ci génn bu ko ba bëgg seen yaram set buñ koy naan dana setal seen yaram bam set wécc ba xeeti tooke yu bon yi ci nekkoon yëpp dana day dañ ba ci wàllu eh, biir bi sax su fekkee dafa am tooke yu lekk wala yu mel noonu wala yu ci nekk ba ci foie bi loolu yëpp bëgg nit koy jëfandikoo def ko jus moom xottam gogo doom di ko naan bis bu ne mo nan ci ben kaas bu yem sun borom mën na koy defal tawfiq ba lol yep da koy dindi bam set wécc ba bax na ci yeen ñi def régime sax bëgg seen yaram di wàññeeku boo xam ne yaram fi ñu tollu neexuk wala mo am greffe diw bu bari cholesterol bari su koy nan da koy dindi bam set wécc baax na lool ba ci walu bët ndax vitamine amna vitamine A vitamine A boobu lu baax la lool ci wàllu bët ak yenn beneen xeetu ferñeent bu ci nekk boo xam ne lu baax la ci wàllu bët parce que su ko nit xottu googu di ko naan na même am na ñoo xam dañ koy lekk xottu googu dañ koy defar ba mu boole ko seen yi ñuy def di ko lekkale baax na togg di ko jëfandikoo baax na sax baax na lool ci wàllu gut waaw tawat yooyu am asib yooyu na xam ne tey day feeñ ci wàllu baaraam yi muy lakk. yaram yi tànk yi tàng jër da ngay gis ñu koy tawat léegole tànk yu tàng jër min luy lak su koy jëfandikoo sun borom nak ja defal tawfiq ba loolu day da koy setal bam set wëcc ndax ci sétal deret la bok anti microbe it moy su ko nit ki jëfandikoo day ar yaram ba yenn xéti microbe yu bari bari même bu nekkon ci biir yaram sa dugay gëné mom sét wëcc su koy jëfandikoo duñ mëna tabbi ci yaram ba ci tawat yi laal wàllu der gis nga sax ñu bëree bëri wàllu cité yi suñ koy faj moom lañ koy faje moom euh, xobam yooyu lawtan ko waaye ba ci doom bi noonu la mel da koy satan waaw surtout xesen lu ma waxoon xeseni tooke yooyu xam ne yaram yi xesen noonu loolu la jëfal léeg-léeg muy xesen ba def ay tërgal yu mel loolu yëpp baax na ci trop ndax antioxydant boobu nga xam ne da ko am baax na ci xol lool ndax li tax mooy bu ko nit kiy jëfandikoo day tax léegi deret ji daw ni mu war a dawe te jafe-jafe xol yëpp boo ko seetee genn wàll gi yëpp nga ji ci wàllu deret ji deret jee dawul su kiy jëfandikoo nag day segg deretam setal ko set wecc nga xam ne te souvent loolu jafe-jafe yi nga xam ne mooy laal xol loolu mën na ci am ba ci jafe-jafe wàllu noyyi pomo xetara bi pomo boobu tawat yi koy laal yëpp bu ko nit kiy jëfandikoo moo xam asma la moo xam bronchite ak yi ko néew yëpp su ko neen koy jëfandikoo léegi def ko jus di ko naan bis bu ne mu naan ci benn kaas nag suñu mën na koy defal tawfeex ba bu ko yoroon da koy ko yoroon loolu yàlla mën na ko ci aar ba ko dal ci enzyme waaw ndax xeeti infection yu virus yooyu di dalaate yooyu yëpp da koy dindi ñoo xam ne dañu put guy lakk enzyme boobu yu mel noonu su koy jëfandikoo mais suñu borom mën na koy defal tawfeex ba ci xeeti góom yu bon yooyu ñuy ragal xeeti tumeur néewi néewi yooyu baax na ci trop su ko nit ki di jëfandikoo di ko naan te koy dindi am set wecc surtout soxna yi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci seen wàllu butitu njur ba ñi nga xam ne sax toujours nga gis léegi suñ toll ñu ngi sañe noonu te da leen ko def suñ koy def jus di ko naan loolu da koy dindi ba da koy wéral ba ba ci sax ñi nga xam ne dañu am ci seen wàllu ween góom yooyu di ci nekk wala wàllu prostate cancer yooyu di ko laal yëpp su fekkee léegi nit ki am na doomam boobu def ko ji loolu comme ni ma ko waxee woon noonu ci njëlbeen gi di ko naan baax na ci trop da koy saafara day maye kàttan ci yaram ndax day nit ki wàllu xiiboon da koy dindi ndax yooyu tawat yi nga xam ne mooy dugg ci biir yaram ba wàññi manqué dafa jox ko xiiboon ak manqué kaaraange ko ba tawat yu bëri du ko yëpp da koy dindi moom si wécc ba ci ñi nga xam ne sax da am jafe-jafe wàllu nelaw jafe-jafe wàllu nelaw soo ko amee surtout guddi balaay tëdd defar ci lu yem rek. jar ko ba mu yem mu naan ko incha allah bu koy def rek jafe-jafe wàllu nelaw yooyu nga xam ne tey moom da koy ba ci ñi nga xam ne dañuy jàmbat yaram wuy ruux ndax loo tax mooy anti inflammatoire di lakk waaw ko nit jëfandikoo moom da koy dindi ci yaram ba mu set da ñi nga xam ne dañu am suukar surtout tawa type nag boobu Euh, day wàcce suukar ni insuline boobu doon def wax nañ ne daanaka moom moom benn lañ tax na su ko nit kiy jëfandikoo su borom da koy defal tawfeex ba nga xam ne tey surtout wàllu suukar boobu yàlla mën na ko ci defal ndimbal bu baax baax a baax ba jafe-jafe yi ci doon am yëpp dootu ko dootu ko bëri suukar soosu di bëri ñi seen suukar yéeg lool lu gaaw la ci wàcce suukar boobu yemale ko kon euh, yooyu da koy def day taxit sa yaram du manqué ndox su ko nit koy jëfandikoo mën na aar yaram ba manqué ndox te manqué ndox boobu su amee jafe yu bari mën naa feeñ ci moom ba ci seere ñu bari ngir nga ñu seere sax surtout seere boobu nga xam ne tey ci manqué ndox lay jóge xam ne soo koy jëfandikoo moom def ko jus di ko naan dana la dimbale ba loolu du la dal ba ci ñi nga xam sax dañuy mar da nga gis ñoo xam ne luñ naan naan dañuy mel rek naanoon ñu ngi suñ ko defee jus di ko naan baax na trop ci ñoom. surtout ba ba tey ni bu jafe-jafe sëqat comme ni ko waxee ak mu sëqat surtout sëqati saan yooyu xam ne dañu am saan di sëqat noonu wala sëqat yooyu nga xam ne rek xëy acide koy def yooyu yëpp su ko defee jus ci dënn yooyu di lakk di jam baax na ci ci wàllu hémorroïde su fekkee ne dafa am hémorroïde surtout hémorroïde yooyu nga xam ne tey day trouble di métti trop bu ko defee jus moom itam di ko naan su borom mën na ko cee defal tawfeex ba Euh, loolu da koy dindi métti diw yi kon gis nga ko yii ci tënk rek waaye lu bari la loo xam ne tey euh, njëriñam fooko takk weesu na ko te moom doom boobu rek laa doom bu werta boobu nga xam ne ñoragul yii lépp xottu googu xottu ko daggee def ko ji ko jëmb ko segg ci naan par kaas bi lii ma wax yëpp boo ko xoolee danga koy danga wante nag li ma wax noonu benn yoon lañ ci naan benn yoon nga koy jëfandikoo ci bis benn kaas rek doy na te mu yem bañ a sax bëpp moo tax ndox ba ci naanee lu bari moom wala mu foor lool mën naa indi nit ki biiram di jam di métti waaw surtout bu nekk jigéen yu ko kooku moom dañ koy moytoo ba tey bu nekkee jigéen yu nàmpalit nañ waxoon ci xobam yooyu loolu dañ ko ci xaw a ndax am na ci sectionné yoo xam ne duñ wóolu jigéen yu lool même bu dee ñi nga xam ne dañoo ci xeetu kii yi lekk yi yu mel naan yi yooyu it na koy moytu ndax loolu mën na koy def ba mu jural ko mu dem yeneen gis nga ko loolu tënk la ci rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa mbooloo mi ñu ngi ne ñëpp tey ziar ñëpp ci ci njiital di nuyu suñu sa dix moom waax lool. xam-xam bu set wecc eh, di ko diggal loolu mu wax noonu ci mbar buuf moom it nag lu jege nit ñi la te ñu di ko jëfar jëriñoo ci lu bare bare mag ñi fonkoon nañ ko loolu mbar buuf am na sax ñu ne sëñ bi nee na mbër mu buuf <laughs> mbar buuf ñu ne mooy mbër mu buuf waaw hmm. waaw defe naa gis naa fuñ bind na sëñ bi wax na ne su ko teeloon a xam xorom polle ak mbër buuf ne sama bë sama benn bëñ du dem waaw defe naa daal noonu la ko waxee xam naa daal lu mën a xew daal wax na ci wax yoo xam ne xam naa ne garab la mbër boof ñëwee mu ne mbër mu boof mbër mu boof nag ku ne xam na dara la hmm. kon loolu sëñ Sadiq wax ci mbër mu boof moomu muy mbër boof yéeme na loolu mag ñi daan nañ ci def lu bare bare comme ni mu ko tënkee noonu rek xam naa moo tax fa ñu laal ko ndax sa Sadiq da ko tënk te lu bari jëriñ la toujours nit wala sax laaj la ci mu ndax am na njëriñ ak loolu waaye bari na njëriñ yi lool ci wàllu yaram kenn mënu ko takk waxoon naa ko fi gis nga wàccee sukar nii comme koo xam ne sukaram dafa yéeg lu ko ci gën a gaaw rawatina sax subaa danga koy boole xobi xobi nebedaay xobi mbër boobu ak xobi nebedaay mooy saab saab nga boole leen ci lu da am ci ab bu rek tàngal ndox sotti ci di ci naan kaas suba bëccëg ngoon loolu moom nee naan ku ko def semaine na nga dem contrôler at jaar ko lu ko mooy rek dana wàcc ba jéggi dayo waaw lu suukar dëgër dëgër dëgër dëgër bopp soo ko defee moom wàcc waaw te yooyu it yu nit ñi la ci jamono jii mu ne suukar soo ko nag ba normal da ngay wàññi di naan lu tuuti lu yem picc yaram yi it noonu li wax noonu boo amee taaxaar bi baxal ko di ko sangoo lu baax la lool ci wàllu der yi surtout lépp laa ji ci wàllu der ba ci xesen yi xesen yi sonal nit ñi moom it lu ci baax la lool soo tàngalee ndox def ci di naan kaas saa yoo lekk ci sango su fekkee dafa def ay picc wala góom dëbb ko sunguf di ko ci suy lu ko ci gën amul waaw raxas biirit koo xam ne daal wóolul biiram ne dafa yaakaar lu ci yenn tooke moo xam yi mooy lekk wala yu ñuy naan li may wax wala yu ñuy noyyi nii ba ko jëlee am taaxaar bi wala xob bi tàngal ndox def ci di ko jëfandikoo moom day raxas mboolem biir yi yëpp gis nga daan nañ ko def li sëñ Sadio wax noonu laaxu mbërëbëf mag ñi daan nañ ko def ba taay daan nañ ko togg toujours surtout yenn xeet tawati biir yi ñu nga xam ne dañu tawati biir yooyu ñuy ragal yooyu yëpp suñ ko toggalaa nit lu ci gën a bari day tàqale ko moom hmm. ba ci biir yu rëy yi sax ñi nga xam ne seen biir yi day rëy noonu suñ koy laax di ko def danañ dem ba mu dëñ waaw koo xam ne biiram day rëy ni mu toll bëgg ko su koy laax di ko di ko jëfandikoo waaw ci yow lu yem rek tàngal ko ci ndox baxal ko ba mu set ko set jël ndox moom ñu togg ci laax te ko jëfandikoo la ko ci gën bëriwul mën naa dem ba loolu yépp dañ siti yi gis nga tawati siti yi lu ci baax la lool su ko nit koy jëfandikoo waaw même bu defee góom sax na ko ci raxas waaw bu ko ciy raxas yàlla mën na koy defal tawfiq bu baax a baax ba loolu yëpp saa aleykum salaam waaw xaaral tuuti yàlla mën na ko ci defal tawfiq bu baax a baax bu dee kurébatit noonu soo tax yu ñaaw yooyu noonu xam ne day dale tey ne waaw mën na nekk fu nag am na ñoo xam ne sax na leen jàpp ci seen suuf moo xam soxna yi la yu mel noonu seen ron yëpp su amee taaxaar bi noonu waxal ko di ko naan yooyu yëpp suñu borom mën na ci sorta mu def ci raxas bu fekkee dafa dee ay picc mu def ko ci raxas bu de ay góom la nii mu jël def ko sunguf daf ko jëndi ko ci suy noonu yooyu yëpp suñ borom da koy saafara bam bale sëñ bi wax noonu wàllu gerees it surtout diwlin googu di jaxasoog deret yi nga xam ne mooy tax xeeti tension yu bari di yàpp nit ñi su koy baaxal taaxaar bi noonu di ci naan saa yu lekkee kaas yàlla mën na ko defal taw ba diwlin yooyu yëpp day dañ ba ci jëfe nga kàttanu sëy googu mu doon wax lu ci bax la lol moy tam amé taxar bi non rek baxal ko tam diko di ko jëfandikoo saa yu lekk ndax jafe-jafe ci yam ci walu sey li ci ëpp lepp ci walu dara ji la moy dara ji mo doxul normal te li dafa bokk ci li tax dara ji non dox normal moy mbar boobu day segg deret waaw dara bu wu tax mo tax mu bax ci bare bare bare ci walu der yak walu city yak walu xeseen yeeg wàllu yu mel non yépp ci wàllu sëy su koy naan dara ji desee wécc yàlla mën na ko defal tawfeex ba nga xam ne tey yëg-yëg boobu mu daan am ak ni mu bëggee mu defee ko yàlla mën na ko defal ndax su dara ji àggee fi muy àgg rek lu bari ñu ngi koy tuumaal ci jafe-jafe sëy waaye du dara lu muy dara ji doxul rek benn waa ji dundul dundam bi ni war a dundee wala li muy lekk lekku lekk bu baax yooyu nag su amee moom faaw loo mën a defit dalay puus rek soo bàyyi loolu mu taxaw garab goo mën a naan dalay puus soo bàyyi mu taxaw loolu mooy tax nga gis ko naan def naa lii waaye bu ma ko bàyyi daanaka dama melaat fekk dafa dundul lekkut lekk yu am vitamine yi wala deretam moo dawul moom dafa bëri graisse deretam salte su dawatul ni mu war a dawee ko raxasee nag garab gi mbër boobu bokk na ci yi koy raxas moom seen wécc ba tey góomi biir yi waxoon naa ko ñi nga xam ne ñoom xeeti góomi biir yi moo xam ulcère walla loolu nek ci estomac ba mo xam ci pout gele dalé ba ci mbaq ga ba ci buti ba ci colon ba yépp su koy def laax léegi di ko naan di ko jëfandikoo mën na ko def safara ba loola yépp wër ba ci xeeti infection yi ba tey mooy tawati yoy tab yi ak picc yeeg góom yeeg yoy yépp su koy moom itam nan yalla mën na ko defal tawfiq ba ci tension ñu na tension day yéegit te loolu yépp wax na li ci gëna bari jëfë jëfë jafe gi na koy def bu koy baxal moom itam léegi di ko naan yàlla mën na koo defal tawfiix loolu yëpp day wàññiku ba ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci seen wàllu bind yaram comme loolu ñuy wax hormone yooyu yenn xeeti ndundal yu nekk ci yaramam yoo xam ne dañuy demam yàgg ñu jaxasoo soo waa mën na koy jural yu bare bari ci wàllu yaramam surtout wàllu njaboot sax jigéen yu bari ñu ngi xaw a taxaw loolu moo ko def góor yu bari ñu ngi xaw a taxaw loolu moo koy def yooyu ñàkk normal waaye loolu su dem nañ xool ko ba gis léegi ay hormonam ñoo normal ñu awul yoon su koy jëfandikoo moom mbar boobu yàlla mën na koo defal tawfiix bu baax ba loolee day saafara moom surtout ci wàllu njaboot googu baax na lool it ci yokk ndoxum góor nga xam ne léeg-léeg nit ko jàmbat benn ndox mi li muy génn génn gi yombul wala sax su génne wala njaan yooyu ne ci bariwul loolu ñu bare bari dañ koy tabat ñu bare ngi taxaw ci wàllu njaboot dara defa ko lu may loolu waaye su boobaa li ci gën a gaaw mooy da koy boole xobi ngeer waaw day am xobi mbar boof ak xobi ngeer wala taxaaru mbar boof ak taxaaru ngeer ñaar yem ko defee baaxal ko ci ndox ñor mu sej ba set di ci naan kaas bu yem saa yu lekk su ko defee nag naan gi toujours li may wax comme gisoo nit ki nit ki gisul la moom xamul la fa mu tolloog nu mel ci tawal yi da nga koy def ba ne saf na rek bañ ko def mu saf nga xam loo ciy def ci ndox loo ci am daay baxal ko defar ko mu yem ba nga xam ne tey boo ko naanee da nga yëg ne saf na ndox mi soppeeku na yooyu am mu takk mel ni sa di wax def ko ci juróomi litre juróomi litre moom boo ko ci defee du gaañ kenn du gaañ kenn bon sax waaye bu loolu ñun li ma wax toujours tawat ñun ni ñu koy fajee dangay ngay jàpp ne ne tawat ji méttee nga koy fajee da nga ko dose boo xam ne mën naa lor mën na koo lor loolu moom nañ koy moytu moo tax ñu de wax toujours lu lu yem lu yem rek loo xam ne ñuy tàngal daal soo ko tàngal def ci ñam ko ba mu yëg na saf na boo ko ñemee mu saf ak yow dolli ci ndox ba mu yem nga xam ne soo ko lekkee sa ñam-ñam saf na ko ñu nga ko naan nga di ko naan te du la gàllankoor. ndax leen nga waax nit mu dem naan dama ko def rek dama ko def waccoog dama ko def nanga miir dama ko def fekk loolu yëpp li koy def doos bee koy def danga koy wàññi ba ñime ko sotti ci ndox ba ñime ko wóor na lii ma mën nga koy naan la def dara nga naan ko kon lii daal ay gën a li sëñ sa deex façon noonu rek loolu la wasalaamaaleykum waaye nag jigéen ñi wérul li nag wax nañ ne koy moytu jigéen ñi wérul bu yëpp li may baax baax na bu fekkee jigéen ñi wérul la nag na ñoo xam ne dañuy wax ne na koy moytu bu mu koy jëfandikoo waaw na seet yeneen garab bu fekkee dafa am lu mu caay faj ci wasalaamaaleykum wa